ahlan bikum man maay njiitu réew bépp senegale moo xam ñi ma wote loon ak ñi ma wotelul te faa fas yéen a yor réew mi ànd ceeg mboolem sénégalais xamut xàjj ak seen ba tax faa leen di hoo yéen sénégalais yi ci ngeen boole xol yi ànd nekk benn moytu kàddu yu ñuy tàqale ak a féewale lii nag du samay kàddu njiitu réew bu senegal ba Bassirou Diomaye fay fa janoog taskatu xibaar yi ni ki démb ci la yëkkatee kàddu yi ni mel yéene kaay yi tey ñépp fa ñëw xëy di kat ci bokk na ca libération fa moom njiiti réew mi ne wote waaye xoote jàmm ak dal woy politique yi ak boor bu ñu mën a féetee nañu wax luy xandi jàmm te moytu yee fitna am nag ay kàddu yu ma dégg fan yi nag ah baaxut teg lañ ko ci suuf wàllu féewalante fitna faa bëgg ngeen dem ci campagne bi ci jàmm bésu wote ba sénégalais bu nekk tànn ñam bëgg ñu teewal leen ci na nationale su boobaa ku mën sa morom rek fa ngay mbuqi lu jëm ci tolluwaay koom-koom réewum sénégal nee na xaw nañ yoonu joyanti ko le soleil yéen a kaay na basiru jomaay fay kay njiiti réew mi fa xoote dal ak jàmm woy politique yi jël seen responsabilité ci moytu yenn kàddu yi wala jëfi rawante ci biiru xeet ak gëm a mi fa caa wax ay dëggam a a kaay ci mbiru Samba Ndiaye mi nga xam ne fa koo fal mu jur coow ci réew mi rawatina waa Pastef ya nga xam ne xànduñ ci njiiti réew mi Diomaye Faye fa tontu mu ne ñun fa ñoo yàgg dund méttit waaye ki nga xam ne moo gën a dund méttit ci bi ñuy ut nguur gi mooy Ousmane Sonko te moom fa wax ne baaxale na liñ ko defoon yëpp kon ñun fa ñoo war am li ñu wax dépasse financement ca li yene kay fa caa yokk mu ne ñun sénégalais yi fa ñoo wóolu ndax suñ projet bi te suñ projet bi képp kuy sénégalais mën nga cee bokk moo xam ku ma wataloon ak ku ma watalut ñoom ñëpp man maay seen président ca vox populi fa ko gën a leeral fa wax ne ñi nga xam ne fa bëri ay nit ñoo xam ne fañ doon xeex ci suñ wet bokkoon ci kujje gi waa ñu nag kenn mënu leen a tudde ay transhumant maanaam fa ñoo wàlli yaan si ñi nga xam ne fu weñ tool rek ñu dal nguur rek la top topp ku xand nguur rek ñu dem fekk ji la nee na ñooñu mënu leen koo tuddee journaliste nako na ko waa léegi fa ñoo dégg Ousmane Sonko bind ba taxal dembu wax ne fal giñ fal Samba Ndiaye mii waa Pastef merca moom d'accord na ca te yow di nga andi ay coppite ca nu mu gën a gaawee ci mbir mi président Diomaye na ko waa léegi wuyu ma du Sonko moo wax loolu fa ngay dem nga laaj ko ko ay kàddoom la faa ci yokk rek na la képp koo xam ne fa ngaa def tooxi doona tappale xalalu askan wi wala def naka su dud noona même bu fekkee da ngaa ñëw si suñu wet bañ fal la jox la poste tamit bu mu tax nga foog ne ñun fañ lay aar wala rëcc nga déedéet terew bu la yoon waree topp fa lay topp l'observateur ne Diomaye kay fa sol mbubbu chef wane na dëgg-dëgg moom mooy président ndax la Ousmane Sonko wax moom fa ñëw weddi ko wax leneen ci mbiru Samba Ndiaye yi président Diomaye démb fa jox jàngal militant Pastef yi ak responsable Pastef yi ci mer wal fa jir yéen a kaay jomaay kay fa dékku xët-xët ak coowal waa Pastef yi léeg ko yéen a na ko yow fa koy rafetal jaaral ci digg bi jomaay fa weddi sonko li ay wax ji ah sonko fa wax ne président jomaay fay jël ay coppite yu gaaw ci mbiru fal gi mu fal sàmm jaay ci gàttal mooy ne fa koy dàq rek loolu lañ ci mënoon a déggee président jomaay moom ñëw ñu laaj ko la sonko wax mun a hëy nee na loolu waxu sonko la ku nekk a baxalee pour mën a nekk ay nit ñu mag réeroo xam na de kii fa wax lii kaa wax la le donte jomaay nag fa wax ne nangul naa nag ñi nga xam ne d'accorduñ ak man ci li def muy waa Pastef yi mer aka wax nee na loolu mooy démocratie du yàgg dara nag nee na appel à la ci yenn poste yi fañ koy tàmbalee def lii yéen a ne jomaay daal du sonko ñi doon wax naan sonkoy jomaay jomaay sonko ah ah intaha jeex na sonko du jomaay de le Dakar waa na fi mu toll ni jomaay ne jomaay Pastef yi nga xam ne fa ñoo mer doon sàkk mu dàq ndax fa wax moom jomaay nga xam ne fa ñoo ñëw bokkoon ci coalition jomaay nekk ay alliés bokk bi jël seen xalal dugal ci ñooñu kenn mënu leen a ooyee ay transhumants déedéet informateur a na kon fi mu toll nii coowal Samba Ndiaye li président jomaay fay jeexal na ko 24 heures na waaye coow li jeexagut mooy fañ koo laaj démb moom président jomaay mbiru Bougane Gueye Dany yow loo ci xam xam nga lu mu leen tontu ah, yow seetal yoon mooy def liggéeyam man sama yoon newu ci du ma wax mukk attekat yi jàpp jàpp leen diw tëj leen diw wala bàyyi leen diw déedéet yoon fa moom boppam fi mu toll ci Sénégal kon loolu sama yoon newu ci waaye nag faa leen di wax na leen faa jàpp ne bugaan la waroon a def defu ko ndax su fekkee fa bëgg ñëw jàll dem Bakel ñu ne ko président mu nga fa saytu kaaraangeem xaaral ba mu génn nga doon jàll waaye waaye booba fa waroon a xaar rek waaye jàppante ñoom ba lii fekk ko ci man sama kaaraange nekku ci sama loxo de ñoom takk nanguta lekk ah fa wax ne moom fa wóoluwut kilifa ya yor kaso lekk gañ koy jox wóoluwut ko daal ni mën nañ caa def dara daal lu koy lor ci wàllu wér yaramam ëllëg waa radoog amnistie ak kuréel yu bëri yuy xeex àq yelefu doomu aadama société civile bi ñoom ñëpp fa ñoo sàkku ñu bàyyi Bougane Gueye Dany mu ñibbi ci nam gën a gaawee waa Kër Massar it fa ñoo wax ne fañ ko war a bàyyi indépendant yéen a na en tout cas Bougane Gueye ca grève de la a kaay <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne débat toog wax diggante Ousmane Sonko ak Amadou Ba jeex na mënatut a nekk ndax sénéra fa wax na loolu mënta am vox populi moo ñu xamal le quotidien yéen a kaay na ko monte nag ba léegi fa mel ni Sonko ak Amadou Ba ñoom la ñànk yab liwuñ ko de fa ñoo fas yéen toog xamal débat keneen ku nekk débat mooy Barthélemy Diaz fa dugguti attaqué Ousmane Sonko xamul lu mu ko baxal fi mu toll nii nee na tuddeetuma ko mimi de mimi mi laa ko tuddee ma ngi ko a kaay ca lii yéen a yi mu nekk jëmut kër fu yéen a kaay ne sénégalais fa ngeen a war waaye pastef moom bu leen leen woteel te faa wax lu tax du ngeen waru leen a jaara jaw responsable politique ca kaw lax mel ni ko naan ko Bart man d'accord maa de ndax man bés ni ki tey pastef laay woteel ci wote député yi sama groupement soxna kawlax yi fekk nañ pastef ñoom la ñu de l'évidence yéen moo ñu ko xamal Barthélemy Diaz mel ni kuy tontu jaara jaw aadama yi gën a am solo ci réew mi ay transhumants lañ Bart ma ngi ko waxee ca fa yéen a kaay la mu ñu wax moom libération mbir mu yéeme yow seetal fa xam benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñeent quatorze fa réer ay mbokkam jaaxle réseaux sociaux yi ku nekk naan ku ko gis dimbale leen ñu xanaa xale bu jigéen fañ koo sàcc ak fañ koo ray ak ndekete yoo xale bu jigéen bi daal fa fàq dem fekk ji faram xab xale bu góor bu mu bëgganteeg rek nekkal ko ca bañ demee nag ba mujj gis ko mu xam ne def na tooxi doona fa mujj tappale ne fa nekk comment maanaam ku nekk diggante dund ak daal ci gàttal ndeysaan waa ma ne xale bu jigéen bu ngeen degg na fa réer bala ngeen a jaaxle yéen mbokkam yi seeti leen wa fa mu dëkk xale jigéen yi ku la ci gën a nekk xale nag ñaareel moo la gën waw bët xam fit fàq fekke sa far ngeen dëkk ca néeg ba di fa fanaan ak a xendu foo nga ne loolu dana jur jàmm